waaw waaw xam nga xam nga beqi eh, moom dafa bokk ci njàngum alquran hmm. ndax mag ñi dañuy wax ne alquran jàng gi mooy tax mu dikk hmm. ay bind gi mooy tax mu dëkk hmm. bind gi def si mënut a nekk moo tax eh, bala nga bind kaamil da nga beq ñun beq nañ ñaari yoon waaw da ngay beq yoon woo xam ne yoonu roba bi may beqi saa bu ma sëriñ bi toppalee ba noppi moom moom moom mooy yor kurusam di ma wàññal di ma ko jàngaloo téeméeri yoon robot ji dama koy jàng téeméer yoon yoo xam ne moom mooy wàññi bu ma tey mu ne ma mën ngaa njëkk bi noonu nañ ko beqee yoonu ñaareel bi moom jotu la àgg ndax xam nga xam ne min bidaaya ilaa nihaaya comme noonu rek waaw waaw nga xam ne bu sër ji moom téeméer yoon macha allah bu ba noppi hmm. xam nga nag beq yi niñ koy ñu bari niñ koy defee tey hmm. ak nañ ko daan defee moom bokkul ah,